بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يوم عرفة بلززين يسر لي ميسر العسير مقداره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مقداره لي بلا مسير يسر لي ميسر عسيري مختاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا محا توجه المكاره ليا باق خبا بذكره وهو ليا أنا رضيت وهو عني رادي بلا مكاره ولا أمراد رد لغير جهة الشيطان من طيب الممر والأوتان فر لغير جهة العين يسوقه لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت بي توفيق هاد أقاده الإنغام قد بالي ما الأنبيام بدت اليوم برب الخيب أعازني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحوي متعب عني ختم كاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير آمين يا رب العالمين jëwriñu xaadim rasul muy cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fii loolu te wér ba lépp lu mu naan lu mu yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim suñu borom kàttanal ko mu defee ko nu kawe njort di ko ñaanal mbooleem jullit yi nga xam ne ni ñoom lañ bokkal réew mi ak àdduna bi di jaajëfal Serigne Ibrahima Gueye ci njàngum de mu am solo mi mbokk yi ñuy seetaan boo leen seenee jataay bi ñu koy amale fii ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloo ak jumaay ji rawatina ci jamono ji nga xam ne nii genn yitte rek moo gën a fës ficc ci Touba muy taxawu mbokki taalibe yi nga xam ne nii dañoo am ay jafe-jafe jëmale ko ci dogalab suñ borom bi muy taw bi nga xam ne nii am na ci ay bés ñu génn loolu tax na nag euh, xalif général des mourides Serigne Touba Cheikh mun Mountakha Mbacké mi nga xam ne nii yitteem mooy taxaw mboolem julliti rawatina ay njabootam muy taalibe Cheikhul Khadim yi taxawal ak kuréel goo xam ne nii lu ëpp ayu basa ngi ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ci ay bànqaas yu fasanti xam naa ne waxtaan wi dana ko indi kuréel googu di wooyu di wooyu ci turu junnatul liman nazamahu di ak kuréel goo xam ne nii dafa daal di lëkkale euh, commune bu Touba ci njiitu sëriñ Abdoul Ahad Ka daara Hizbu Tarxiya ci njiitu Serigne Youssou Diop ak Touba ci kanam ci njiitu sëriñ Serigne Abibou Mbacke ñoom nag euh, ñu ànd ak mboolem jullit yi ak taalibe yi ngir taxaw mbokki taaliba yooyu nga xam ne nii ndogalab suñ borom da leen a dab te ñu am ci mbégte xam naa waxtaan wi dina ko gën a indi gannaaw ay jataay yoo xam ne nii amal nañ ko ci ayu bés bee waaye itam di yaatal liggéey bi ci internet bi tey ji nag ñu ngi àndaat ñu ngi fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jataay boo xam ne nii dina lëkkale yenn ci kilifa yi yi nga xam ne nii ñoo yore liggéey boobu buñ ci tuddee sëriñ Abdul Ahad Mbacke moom sëriñ Abibu moom mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi moom moo war a tàmbali bu noppee ci moom sëriñ Youssou Diop ni loon ko waxee léegi bokk ci liggéey bi sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Modou sa Dieng moom itam bokk ci kuréel gi di euh, comité de pilotage bi sëriñ Cheikh Abdou Mbacke moom bokk ci euh, comité de pilotage bi euh, dinañ jox kàddu gi itam sëriñ Cheikh Gueye di technicien yi nga xam ne ni ñoom itam ñu ngi def liggéey bu am solo ci terrain bi ngir ngàcc kër yi nga xam ne nii dañoo am mbënd Euh, Serigne Djililo ak sëriñ Moxtala ñoom itam teew nañ euh, ci turu commune de tuba waaye ni ñu ko waxee léegi rek lépp rek di génn kuréel kon ginnaaw bi ñu jaajëfalee Serigne Ibrahima Gueye mi nga xam ne moo ko ubbi ci njàngum xasida dañuy jox kàddu gi Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Habibou mu ubbi jataay bi defal ñu ñaan ñu door a wéyal Serigne bi bisimilah. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki jullit taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar jiital ci bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom ko fi te may ko bëgg koo liggéeyal sëriñ Tuubaa ma defee ko na mu ko bëgg te ànd di ay kàddu ni ko kilifa yi jiitu wax rek ci ubbi jataay bi ci ndigal lii nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha jox nanu ko muy Touba ci kanam seq ko ak Hizbu Tarxiya ak commune bu Touba ci Touba ci kanam ñu teewal fi sëriñ Habibu ànd ko ak sëriñ Mamour mi toog ci Hizbu Tarxiya sëriñ Youssou Diop jëwriñ ji mi ngi fi ci commune bi sëñ Abdou Lahad Ka waaye ñu ànd ak sëriñ Cheikh Ibrahima Mbacke mi moom Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne koo xam xam ko ak Cheikh Mountakha muy ku yàgg ak moom ku taqoo moom lool bokk ci ñu a jege sëriñ jox ko yi ndigal ba liggéey bi tàmbalee ba tey bis bu set mu ñëw fii ci kër sëriñ Tuubaa gi bokk fi nekk noonu yendu fi ba guddi noo fi ñëw noonu nooy wàccandoo am taxawaay bu am solo te lépp luñ fi yendoo su demee dana ko jottali sëriñ bi kon ci tuur ñooñu la ñuy nuyoo di wax ne lii nga xam ne sëriñ bi taxawal na ko boole ko ñetti ko lii ci pas-pasam bu dëgër ak xalaatam yu rafet ak yéeneem jóoy ci taalibey sëñ Tuubaa ci dëkk bi bi lii wàccee mu xam ne dogalu suñu borom la muy ku nangu dogal bi te nanguloo ko mboolem taalibe yi waaye mu xam ne nag am na ay taxawaayu saa yu ci waaw su ko sooboon mu joxañ ne dem leen defal ma waaye daa dindi alalam joxe ne defal leen ma ci defal leen ma ko doo ko soññi taalibe bu mën nag mu fekk sunu ca boobu ba léegi nag ñi ko seq mu diggante Touba ca kanam Hizbut Tarqiyyah commune bi ñu ngi ànd ak seen ndaw di taxaw liggéey boobu muy liggéey bu yaatu nag ndax day loo xam ne mu ci mucc ñu néew néew la waaye nag dañ cee gën a waaye sëriñ bi yéeneem ak bëggam mooy taxawu taalibe yi ci tolluwaay bii bañ weesu ko ak jàmm kon ci tuur ñetti kuréel yooyu daal ci la nuyoo bokki taalibe yëpp di yëgle ne liggéey bi tàmbalees na ko te ñu ngi ci te fas na yéene li feek ak gutit dun teg sunuy laxasaay di ñaan yàlla ñu daje ceeg tawfeexi sëriñ Tuubaa ba ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha bëgge mu amee ko ni ban làq ci ngërëmam ndax nattablewul na sun làqi ngërëm rek làq nañ ngërëmu sëriñ bi ndax Cheikh làq na mboolem ngërëm mboolem ay kilifaam yëpp loolu ku ne mën nga ko seere kon loolu rek doyoon na sëkk ci am ngërëmu sëriñ Tuubaa bi mu fi nekkee jataay bi léegi it ku ne xam na ne tas séefam itteem jëpp jëmee na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa kon nag ab soññee la ci nun kon liggéey bii daal nga xam ne boole na ko ñetti kuréel yi te taalibe yi Sëñ Tuubaa yëpp yi bokk ko moonu dajale fii ngir leeral liggéey bi ak soññ bokk taalibe yi kon li ci des dañuy jox kàddu gi kilifa yi nuyee liggéey bi jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Abdul Ahad Mbàkke Habibu ni leen ko waxee léegi rek ci kàddu yu am solo yi te tënku kon dañuy daal di jëkkanteeg waxtu bi rek daal di jàll ci ñaareel bi waaye di leen xamal rek ne jataay bi ginnaaw ni ñu koy waxee léegi rek ay site internet yu bëri ñu ngi koy euh, yaatal ci àdduna wërngal kàpp ba mbokki taalibe yi fa ñu nekk mën ko ànd ak ñun noonu la ko RFM Mbacke Assalaamy FM di àndee ak ñun en direct euh, euh, télévision Al Mouridiyyah itam moom it mu ngi koy def en direct terewul nag bu ñu noppee ñi nga xam ne nii itam bi liggéey bi tàmbalee ak léegi muy yenn ci ëttu taskatu xibaar yi ñu ngi ànd ak ñun di yaatal liggéey bi bu dee rajo yi dinañ fexe ñu jot ci niñ koy defee ci MP3 bu dee ñeneen ñi itam dinañ fexe ñu jot ko ba yaatal ko ndax yaatal ko mooy yaatalal Serigne tubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké euh, liggéeyam bu am solo bi kon dañuy dem ci Serigne Youssou Diop niñ ko waxee léegi rek euh, nekk jëwriñu xes Hizbut Tarqiyyah waaye fii ci kuréel gi di kuréel Junnatun mu bokk ci ñi nga xam ne nii ñoom la euh, Serigne bi dénk liggéey bi boobaak léegi itam ñu ciy def liggéey bu am solo kon sëñ Youssou lu ëpp ay bés a ngi nii liggéey bi mu ngi dox ci noonu nga xam ne ni noonu la ko sëriñ Serigne taxa santaane boobaak léegi itam murit yi ñu ngi bàyyi ko fu nekk di ñëw ñu ngi topp liggéey bi euh, situation liggéey bi ak euh, fi mu toll ni lan ngeen ci mën a leeral en tant que superviseur. waaw jërëjëf ñu ngi nuyoo ay ziare di tàmbalee suñu kàddu. ci salaat sunu jaayante ci seexul xaddim di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaxa mi nga xam ne moo nuy wommat jëmale ñu ci sëñ Tuubaa anam boo xam ne lott nañ ci waaye mu koy defee noo xamante ne def na ci xel yëpp lu tax jombaleetuñ dara suñ bopp ñu gën a baax ci lislaam ak fañ jaaroon moom wommat nañu ci xaside yi wommat nañu ci yitte ba suñu xel ci ñoom rek la ne ngir bis pénc fa sëñ Tuubaa bëgg siggee murid yi bu ñu taxawee ñu xam ne ku mës baax ci lislaam ña nga àndaloon ñi ànd ak sëñ Tuubaa waruñu leen a ñee loolu nag boo gisee ma koy ubbee lii dafay toolu xare boo xam ne sëñ Muntaxaa daf ñu cee woo toolu xare nag danga nga cay demee yéene te xam ne suñu boroom li mu ci dëgale lu rëy la moo tax dafa woo taalibe yëpp waaye dafa jiitu kon moom sëñ Muntaxaa yàlla nañu ko yàlla fay la Euh, di sant njabootu Sëñ Tuubaa gépp ndax ñoom euh, dañuy benn bopp seenu ànd ak Sëñ Muntaxa saa su ne ab soññ la ci dongo yi rafet na sell na te it jiital nañ ko ci lépp doyloo nañ ko ci lépp euh, comité bi nag nga xam ne mooy junnatoon li ma nazamaho li ci Cheikh Mamadou Bachir wax keroog rek junna moom Euh, xam nañ ne moom la tubaab di wax bouclier lu war a agsi te warta agsi moo koy fekk bu ne sëñ tubaab waxee ci mat loo fausi ne wa jannatan li saalikin muridi muy àjjana yi bépp murid bu sóobu jëm ci yàlla moom tubaab waaye wa junnatun junnatun am haatikin maridi képp ku fetteerlu di bëgg xotti war may lislaam wala nga gàllankoor li nga xam ne mooy yëkkatiku gi moom day doon bouclier bu taxaw di ko fekk gàllankoor yi nag donc yi buuree fu ne bàyyi ko fu ne ñëw wutal si sëñ Tuubaa euh, suñu borom indi ay nattu ak i gàllankoor kon dañoo war a taxaw ci solidarité taxaw ci ànd taxaw ci rafetoo ba lii mu doon loo xamante ne kenn ku ci ne dina yëg ne joxante na loxo ak moroomam ngir dimbali nit ñi loolu nag moo tax comité bi jóg ci loolu dong lañ ne buñ ci dikkee ak techniciens yi di ngeen gis ne bi mu tàmbaleeg léegi àggoon na foo xam ne njàqare amoon na waaye fi ñu toll nii ñu ngi koy gën a maîtriser di ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a ndax fi ñu toll nii da nga naan bare na ci ay quartiers yu mel ni ay Daaru Xuddoos wala quartier yoo xamante ne euh, boo xoolee lu mel ni Daaru Minam ay quartiers yoo xam ne euh, gënoon na fee doy waar Gede ak euh, Sura yooyu fi ñu toll nii ñu ngi koy tàmbalee maîtriser quartier yi nga xam ne ci la jafe-jafe bi gën a des faw ñu xam ne plan d'urgence bi ñu def nii baax na waaye dafa am lu am ci Touba mooy dafa am ay barab yoo xam ne ay yoonu ndox la di ay déeg walla lu mel nii tey jii mën nga ne ay dex yu yeewu yoo xam ne euh, téeméeri at ca ginnaaw euh, dafa mel ni ndox mu bëri dafa amoon waaye at yi ñu weesu muy juróom fukki at wala juróom-ñaar fukki at maral yi ak li nga xam ne mooy bekkoor bi doon am ak avancée du désert bi doon ñëw taxoon na lu ci bëri ci ndox yi dafa ñuy son amatul waaye teewul mag ñi ñoom xamoon nañ ba daan nañ dànkaafu ne barab sàngam bu bu fa kenn sanc daan nañ ko wax waaye tey jii plan d'urbanisation wala nga ni euh, plan de lotissement yi waa Kër Sëñ yi di def tege na ci yoon loolu waaye occupation bi muy gën a dem raj-raj loo bi dina tax tey jii ñoom dénkaane yi ñu daan joxe sax nit ñi respecté tuñ lu ci bari nit ñi respecté tuñ ko te ab dëkk day noyyi ab dëkk day am yoonu ay yoonu ndox loolu defe naa liggéey la yoo xam ne fas nañu yéene ànd koog état nit tax ñuy wax ànd koog état du dara lu dafa am ay compétences yoo xamante ne état transféré wu ko sax commune moo ko yoral boppam assainissement loolu da cee bokk kon ñu xam ne lii du liggéey boo xam ne ñun dañuy beru rek di ko def dajale sunu alal nag di ko ci def ñu mel ni sëñ bi daay dajale 37 milliards sos ci université teewut. loolu jàng ak jàngale loolu ci compétence état la moo ko war a warlul képp koo xam ne citoyen la waaye yoonu murit ku ne xam na ne ca jamonoy sëñ yu mag bi ba bisu tey yoonu murit moom euh, dafay mel ni day dafa war a sawarloo état ndax koo xam ne lu muy def lu ne bu waree état wala bu waree keneen moom da dem ba jeex loolu indi raay bi njaareem ba Tuuba loolu moo tax yoonu murit ba ba ba réewu Sénégal di décorer sëñ Modou Moustapha ak maam Thierno ak murit yu bëri di leen jox médaille agricole loolu dara waralu ko lu dul économie Sénégal murit yi dañ ko yàgg yëkkati ca kaw kon tey jii su fekkoonte ne dañ ne rek ci wàllu séddale séddale boo xam ne ci maandu te dong la tege Touba dafa mérité un réseau d'assainissement boo xamante ne dafa tolloog jamono loolu mooy wax ci loolu nag kon boo gisee ma koy wax du dara lu dul euh, la sëñ Abdoulaye waxoon en 1976. sëñ Blaat dafa waxoon nag ki nekk président mu ne ko damaa bëgg lépp lu ngeen di séddale ci Touba lépp lu ngeen di séddale ci senegal wàllu tuubaa ngeen génne ko te bañ koo xiinal warlu naa leen ne bu ngeen ko xiinalul te teg ko ci aw yoon fu ngeen bëgg àggale senegal di ngeen ko fa àggale bu ngeen ci gàttañ loo nag loolu moom yéenewuma leen ko waaye yàlla suñu borom day gàttañ bi seen biir kon amul nattable na ci ne ñaan gi gën a gaaw ci ku bëgg yeggale Sénégal fa ko bëgg yeggale mooy nga fexe ba Touba wàllam rek moom laajul sax lu ëpp ndax murit yi rek ñoom dinañ def ba def loo xam ne sax wàllu état la waaye bañuñu loolu waaye nag euh, la ñuy def def loolu ndax dañoo jox suñu bopp Sëñ Touba bu mu jeex takk waaye li nga xam ne àqu sénégalais yi la nga ni sénégalais yi motaguñu ñaar fukki million te Touba fi mu toll ni li fi yeewoo jege na ñaari ñaari millions yi doomu aadama kon booy séddalee ak Touba bu ñu ko ko joxee defe naa dëkk bi fii ñu tollu ci xeex waroon nañu weesu fii loolu nag maa ngi jéggalu ndax man ab dongo rek laa euh, te te politique gu yàlla xam na ne man kenn rek laa am féete moom muy Seexul Xadiim loolu kon dama koy wax ngir ñu xam ne dañoo tollu ci jamono joo xamante ne problème mu mbënn mii war nañ ko gérer en tant que urgence urgence xeex ci. waaye dañ ko war a saytu it en tant que problème bu structurant boo xam ne dañuy ut ay matukaay yuy tax bu ñëwaat loolu defe naa lu am solo ndax tey yi boo xoolee dem nañ ci ay barab yoo xam ne lañ fa wàcce ci ay pompe ay juróom fukki pompe la ñuy wàccee ndoo wala juróom benn fukk waa sapeur pompier waa ONAS ñun suñu équipe technique yi junnatun ñëpp ak bon volonté yi ñëpp dañuy wàccandoo ci terrain bi mais lan ngay constaté da ngay constaté loo yóbbu ci ndox bi mu ñëwaat ndax ndox mi bu génnee foofu mu am fu mu jëm foofu mu am fu mu jëm loolu tamit moom nañu bàyyi xel ne diggante euh, kër ñang ak daaru raxmaan loolu am na wala kër kàbb ñaari barab yooyu rek moo fi ne te am na rythme boo xam ne suñ ko ko yóbboo ci ci ndox mi bassin yooyu duñ ko attan kon lii moom mooy wax ji Ngiraneen ah, guy ziar quartier Mame Diarra fetto fiiñ ñu toll nii boo fa demee da ngay yër da yërëm loolu ñu fa nekk waaw ñu ci bëri génn nañ seen kër fi ñu toll ni Touba ñu génn seen i kër ëpp na juróom benn juróomi téeméeri nit juróomi téeméeri kër ëpp na ko juróomi téeméeri kër yoo xam ne seen boroom dañ ko abandonné complètement ëpp na ko ndax fi ñu toll nii dafa am ay réglages yu ñuy defaat ci wàllu recensement yoo xam ne état bi lañ ko àndal gouverneur ak équipe bi ñoo ngi ko àndal ñoom nag àndin woo xam ne àndin wu rafet la donte ñun li ñu tënku mooy ndigalal sëñ bi waaye ku ne xam na ne euh, respecter état ak respecter yoon li nga xam ne citoyen yëpp dañ koy def sëñ Tuubaa moo ci jiitu te yoon woowu la sóob dong yi moo tax dérangé wuñu kenn yàqaluñu kenn kenn loolu kon laa doon ubbee di santaan nag ñi ma seqal liggéey bi ci commité bi di ci jiital sëñ Habibu mi nga xam ne ñun dañ ko jox présidence d'honneur bi te ki ko fi teewal di sëñ Abdoulahat nga xam ne ko gis gis nga sëñ Habib benn liggéey lañu ñu yor euh, lépp nosu waaye su ma tuddee tamit sëñ Mamoor bi nga xam ne mooy président Touba ci kanam ñu ànd àndin woo xam ne amul benn bis boo xamante ne du ñoo ànd liggéey bi àndin wu rafet wii euh, boo jëlee commune de Touba maire Abdou Lahad dafa empêché dafa nekk ci ndigalal sëriñ bi moo tax euh, teewul ci jataay bi waaye ñi ko fi teewal rek boo xoolee ci commune bi am na présence bu yaatu diggante sëñ Jili ak sëñ Mourtala Lo ñëpp tamit ci commune bi lañ teewal euh, boo jëlee kon Hizbut Tarqiyyah moom nee naa leen Hizbut moom euh, camp militaire la boo xam ne day la boo xamante ne yaa ngi liggéey Sëñ Tuubaa rek noog yow na bokk lépp ndax li am solo mooy sëriñ bi wootee daan na woote ci ñàggum xasida euh, jiital nu ci ñu ànd koog yéen te teewul ñu xam ne xëñ na cër yi ca ëpp eh, dongo yi jiir nañ ko ñun dañuy jéem a raas ngir bokk ci rek kon eh, sëñ Tuubaa danoo boole lu ñu mënta séddoo fii kon eh, di sant ñëpp rek di xanaa di bàyyi kàddu gi mu mu dem te xamle ne dong yaa ngi ñëw bu baax wooteeb sëñ bi ndax sëñ bi bu mu yëkkatee ñaari téeméeri million def ko dugal ko ci compte junnatoon li man nadamawo waxuma la dara waaye banque yi sax fi ñu toll ni banque bu ci ne mi ngi ràcc ràcc loo ak moromam ne damay ubbi compte fi ñu toll ni daanaka benn compte ba ñu njëkk ubbi ndax euh, daanaka la sëñ bi joxe boobu compte bu ko accueillir la ñu yàkkamti woon waaye bañ ko amee ba noppi fi ñu toll ni mën naa ne juróom-ñaari compte gën gaa néew lu jëm juróom-ñett am na yoo xam ne compte bancaire la euh, Wave bi ñu ngi koy défilé saa su ne ñu xam ne lii moom mënees na cee dugal euh, Orange Money bi noonu ak ñoo xam ne dañ naan dañuy jël seen addiya dem fekk Cheikh Mamadou Muntaxa fa mu ne dem teg ko ci loxoom te mu benn la la ñuy jox sëñ Muntaxa ak la ñuy jaarale ci comité bi amul benn différence benn ndax nun du ñu xëy yendoo loo xam ne moom sëñ bi du ko xam ndax xam ne moom lañuy liggéey liggéeyal kon daal ñu ngi sant ñi ko àndal àndin wi rafet na tey laxasaayu waat na di tëjee kàddu yoo xamante ne mooy sëñ Touba dafa fonk tubaa keroog am na lu ma ci wax ndax dama mës a dégg sëñ Abdou Lahat mu am lu mu wax ñun ñi ànd ak sëñ Touba kenn ku nekk ñun sëñ Touba defal na la loo xam ne mënoo koo fay mënoo ko sant kon sa yitte mooy lan laay mën a def ba sëñ Tuubaa gërëm ma loolu murit bu ne loolu ne ci yow kon nag na nga xam ne lii di taxawaay bii ci Tuubaa bëgguk sëñ Tuubaa la bëgguk sëñ Tuubaa nag boo xasee xam amatoo looy taxawaalu da nga naan yitte ju amoon damay jublu ci bëgguk sëñ Tuubaa gi su fekkee ni yëg nga ne da nga ko war a sant moo taxoon sëñ Abdoulaye am na benn waxtaan tamit euh, mu wax ne Euh, nun murit góor góorgóorlu ba am nañu yàlla waxaloon am lu mu leen wax la leen daloon nañ moytu mu dal uskuroo ni'mati allati an'amtu aleykum wa awfoo bi ahdi oofi bi ahdi ku ne xam na ne bani Israël la suñu borom waxaloon defal leen lu ne ñu wëlbati ko war ko ci seenu doxal weddi yonent yi topp ñu topp ñu nañ leen war a toppee topp seen bakkan nun nag seen Tuubaa ginnaaw defal na lu ne kon nañ xam ne nekkal ko la ñu war a def liggéeyal ko lañu war a def ci ak bëggam kon bëggam googee nag dara jiituwu ci Touba gi waaw dëkkal ko tuubaa ku fi mënta dëkkit defar fi sa bat sa kër bopp gu bu baax ah ut ku la fa nekkal ngay dal ngay daloo ay gani màggal loolu muy bu ne sëñ bi woon na la ci yaa ngi ci kon mbënn mbënn mi di ndox mi war nañ cee ànd xeex kenn ku ci ne fexe ba sa ñàkk tàbbi ci lii daal laa ne woon naa ko ubbee te bàyyi modérateur bi mu dikkaat ci nga xam ne dañ ci ñëw. sëriñ Youssou Diop ci kàddu yu am solo yooyu te tënku ni nga ko waxee rek kon xam naa duñ ci def benn commentaire ndax ñi war a jël kàddu dafa bëri dañuy wéer rek euh, ci niñ tërale jataay bi jox sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ bu sa Dieng moom itam bokk ci euh, commité de pilotage bi mooy kuréel gi nga xam ne ni rek euh, jëwriñ wax na ko léegi moom la sëriñ Mountakha Mbacke taxawal ngir ñu daal di dimbali wala ñu taxawu mbokki taalibe yi nga xam ne nii loru nañ ci mbënd mi te ak léegi seenub liggéey macha allah comité boobu nag fasantikoo ci ay bànqaas maanaam ay commission yoo xam ne nii saa suñ xëyee dañuy nas tënku ngir liggéey bi ñu amee ko ni nga xam ne nii noonu la ko sëriñ bi bëggee kon sëñ Mamor ginnaaw bi ñu la joxee kàddu gi nga daal di nuyoo comité de pilotage bi kuréel la goo xam ne nii da ngeen ko tënk saytu ko organiser ko ñuy def liggéey bu am solo bu ñu bëgg a xamaat tuuti rek kuréel googu nu mu tënkoo ak euh, xëy na commission bu nekk lan moo ci taxawaayam lan nga ñuy euh, baaxe bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa siyaar bu baax a baax di kàddu ci tur xam ne Sëriñ ko taxawal loolu lépp loolu ci nekk ak jumtukaayam nag taxawaayam ci lépp loo xam ne dafay gàll ko jullit ñi loolu yaa ma teg teg bët la ci Sénégal wala ci feneen xewoon ci tukki duggoon na ci li xewoon ca Maroc Sénégal ci yeneen dëkk yi naka noonu ca covid 10 covid ca covid ba ba tey jii ci mbënn mi nii kon taxawaayam moom coono yi jullit yi rek moo ko ñor waaye nag ndegam yàlla dafa dogal xew-xew bi xewee tey fii sunu kër moo tax mu jox ko yitte ju ma sëkk ngir nit ñi mën a am solution ci jafe-jafe yi ñuy dund di wax ne rek nag kuréel gii kuréel la boo xam ne plan d'urgence la boo xam ne dafa ñëw ngir indi solution boo xam ne da nekk solution short terme ndax long terme moom comme mo suñu waxee boo ci nekk mhm. état bi la war waaye nag solution short terme ku ne mën na koo jéem a fexe ba am ko mooy nit ñi mën a dund ba li jàll ñu mën leen a pexe yoo xam ne dañ mën a am solution ci jafe-jafe yi ñuy dund wax rek problème bi rek problème la boo xam ne dafa dafa dafa dafa lëkkaloo ci ñetti yëf ndax problème mu réseau la problème taw la ndax ku ne xam ne ne Touba comme ni ko suñu si waxee leer na lépp mooy dëkkuwaay ci bëri ëpp fii am ndox dëkkuwaay dëkkuwaay ndox la woon li gën a xëy na léeg-léeg bu ñu demee bu ñu nekkee ci jàmm dara xewagul kenn du bàyyi kenn du def benn prévention waaye ñu xam ba accès ñëpp jógandoo bu déwénee ñu nawaat ci loolu kon loolu jàpp naa ne jar naa ñu bàyyi ci xel bu baax a baax li wax ne problème yi ëpp nag nga xam ne fi mu ne moo moo gaar te ñu war koo solutionné bokk na ci pompage mooy pompe ña fa nekk di fa dund boo ndox mi génn ñu mën a continuer dund ñaareel bi mooy relogé yi nga xam ne moom seen kër ndox mi da ko nango ba pare amatuñ pexe ci nekk fa ba nëgën bi ci topp mooy ñi nga xam ne xew-xew mi di leen jural am jafe-jafe mën a sàkku seen wërsëg ñooñu am problème social kon ñett yi jàpp naa ne mooy mission kuréel gi te it nag mu nekk mission boo xam mission boo xam ne mission définie la ndax solution bi ko tax a mooy solution bi ñu nekk nii mooy nawet bi ak li mu jur ci ay jafe-jafe kon sëñ bi ci yëg-yëgam mu jiite liggéey bi joxe ci alalam joxe ci xalaatam ba pare ne man maa leen ñeenteel man maay kuréel nga xam ne mooy ñeenteel mi jiite murit ñëpp kon kuréel bi kuréelu murit yëpp la ko joxee ndigal nag jox na ko li muy jàmp jàmp jàmp dañoo gis dañ ko war a nos ba tax ñu taxawal comme am na fa juróomi nit ñuy yëkkatandoo di tegandoo ndax ngir gën a mën a jekku ndigalu sëriñ bi bañ ci jógee commission bu xam ne ñoom ñoo tënk liggéey bi mhm. commission bu ca nekk kuréel gu nekk ñu jël ci mu composé kon ñu xam ne liggéey bi ñoo ñëpp bokk gëmandoo ne sëriñ bi li mu bëgg dana ko am loolu am nañ ci am am nañ ci kóolute waaye nag ñun yàlla toofee xale sëriñ bi yéen ñu aw yiw ba booluñ ci liggéey boobu nañ ko sant yàlla sant ko sëriñ kon daal ñoo ngi wax rek ne bi ñu dox wax dëgg yàlla taalibe yi ñu ngi participer bu baax a baax ñi nga xam ne it xëy na ñoom wàññi bu baax ñi nga xam ne ñoo liggéey boobu fu mm-hmm. luñ defagul fu ñu toll li ñu dese li ñu lu war ci taxawaay bi ñun ñëpp du ñëwaat incha dañ ko leeral ba mu kon daal li may foofu rek mm-hmm. mooy daal na ñëpp gën a takku gën a jàppalante xam ne jàppalante moom dafa nekk base ci lislaam mm-hmm. dafa nekk nekk principe waaye nag nekkaat ko ci yoonu ñu xame leen jàppalante kon nag waxtu wi lañ ko gën a yittewoo kon na si ñëpp gën a bàyyi xel ku am kër goo xam ne féex na ngir dëkkal fa ay nit nga joxe ko dëkkal fa dimbal loo nga imbal dimbal nag day nekk dimbal soxla nañ physique soxla nañ xel soxla nañ matériel kon daal si moom bu baax a baax sunu njëbbal ci moom ak sunu yaakaar sunu góolu fas yéene ànd ak yépp nag topp ci ginnaawam ba li mu bëgg mu am ko te mooy njariñu jullit ñi mooy njariñu murid yi njariñu dëkk bi te am nañ ci yaakaar bu baax a baax nag ne ko suñu waxee rek mooy dëgg murit xamul xaar fu moom lu bëgg dafa jàpp man mën na ko war a def boppam ko am nekk waru ko am Sénégal ñi fi nekk ñëpp ay Sénégalais lañ ñu nekk fii Touba li ñëpp yu fay la ñuy fay ci état bi ñu leen teg ay taxes di ñuy fay ay TVA di leen fay ay patente ak yooyu yëpp comme loolu nag am na lu mu war a jëriñ mm-hmm. waaye di ko ne dafa war a jëmaat ci population bi yëpp ñu ngi ciy gën a soññante di ci soññi eh, état bi di xam ne daal ñun suñu mission mooy def solution boo xam ne day nekk soo terme fii nawet bi waaye nag ñoom comme diggée nañ ko ñoo ngi leen ci néggandiku bu jàllee jàmm incha allah jàpp nañ dañ ci tax taxawaay yu am solo kon daal noo ngi gën a feddliwaat déglu sëriñ bi di feddliwaat nag euh, jàpp euh, taxawaay Touba Ca bu mu fas yéene ci liggéey bi ba kenn dootu ko xàmmee ba liggéey bi jeex ngir sëriñ Touba ak sëriñ bi ko ci dugal kon xam naa jërëjëf euh, sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax niñ ko waxee léegi rek daanaka indi nga kuréel gi naka la tënkoo moo xam muy technicien yi wàllu social wala administration finance xam naa dinañ ci àgg loolu day daal di firndeel rek yéene ak bëgg-bëggu Cheikh Mouhamadul Mountakha ni ko sëñ su waxee léegi moom li ko ñor mooy jullit yëpp doon benn rawatina murit nga xam ne bu ñu songee liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu amee ko nu yomb ba mën caa làq ngërëm kon loolu feeñ na ci jëf ji kon yaakaar naa ne duñ am benn commentaire boo xam ne nii moom lañ cay dolli. kon dañuy jox euh, Serigne Cheikh Abdou Mbacké rek ba tey bokk ci commité de pilotage bi muy kuréel gi. waaye yore wala wala bokk ci ñi nga xam ne ni ñooy wàllu finance finance bi nag euh, sëñ Youssou wax na ko léegi ci diggante ñi nga xam ne nii ñu ngi ñëw di indi seen i barkeelu jaarale ko ci banque yi wala ci yeneen euh, plateforme yi ñoom nag ñoo koy saytu ba tey sax ñooy saytu liy dugg liy génn lépp ndax euh, mbirum euh, mbooloo moo demee noonu rawatina nag liggéey bu Serigne Touba Cheikhoul Khadim ba nga xam ne nii nii ñu nose kuréel gi yaakaar naa ne na sëkk rek ñu xam ne ñoom saa suñ xëyee ci lu leer nañ ci la ñuy dox kon euh, Serigne Cheikh lu ñu jox la kàddu gi rek nga daal di nuyoo ñëw ci finance bi ginnaaw bi Serigne bi wootee woote gi daal di ciy jiitu ni ñu ko waxee léegi ñëpp gis ko gis nañu itam mbokki taalibe yi mbokki jullit yi saa su nekk ñu ngi ñëw sëñ Youssouf firndeel na ko léegi ban situation nga ñuy defal ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaanirahim ark cheikhuna ahmadul xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen ziyaara di wax rek ne waa alhamdulilah ni nga ko waxee ñun noo yore commission finance ànd ko ay bokki taalibe ay bokk ñu dénkuñu ko ci comité de pilotage bi et commission finance bi suñ ko waxee nag commission finance am na juróom-ñeenti membre ak ay assistant seen liggéey itam lu ko waxee mooy jéem a dajale lépp loo xam ne ni dugg na fi ci xaalis ak nature ak matériel bu mu mën a doon te ko teg ci yoon wu leer itam woo xam ne luñ ci soxla mu war a génn dana génn génne na mu war a génne bàyyi ay trasam luy dugg itam dugal ko jaarale ko fa mu war a jaar ba mu yegg fa mu war a yegg kon ci loolu lañuy ñuy waxee ne euh, commission finance boobu niñ ko tëralee mooy am na. su commission intendance boo xam ne lépp luy nature matériel moom moo koy gérer sëñ Issa Mbacke mu sëñ Moustapha Bassirou mooy mooy responsable bi am nañu trésorier sëñ Babacar Mbacke la am nañu secrétaire commission bi di sëriñ euh, Thierno Mbaye ak euh, comptabilité wala comptable moo xam ne ni mooy sëriñ Cheikh fay euh, am itam ay ay assistance ñoom ñooñu yëpp itam am nañ ñu toftalaat seen ginnaaw ñu ànd ak ñoom liggéey bi bu dee ci wàllu ni ñuy liggéey itam mooy lépp loo xam ne ni ab commission soxla na ko dina ko demander commission administrative bi nga xam ne mooy commission bu comité bi moo ko créé buñ ko xoolee ba gis ne lu war a nekk la te ci liggéey bi la jëm te jaadu na ñoom ñooy euh, ñoo koy jox commission finance bu joxe commission finance mu xool def ca lam ci war a def te mooy bu jëmee ci wàllu xaalis euh, expression de besoin bañ def tam dem dem commission administrative bañ valider ñoom wane ne war naa mën a nekk jaadu na moom la ñuy indil bu ñu ko indee ñu xool ko fekk nekk na fi moo xam nature la wala matériel wala xaalis ñu yóbbu ko comptabilité buñ ko enregistré ba pare delloo si bon bi ñu mën a bu dee dañuy décaissé ñu décaissé leneen luñ ci war a def ñu def ko même bu dee lu jëm ci wàllu matériel ñu mën koo jaarale fi mu war a jaar daal ba mu am trace yi mu war a am ngir ëllëgët si biir ñun ñooy rendre compte kon commission finance noonu la tërale ci ab kuréel goo xam ne mbooloo mi yaatu na lépp lu ñuy def itam dañ koy tiim defe ko ci anam yi nga xam noonu lañ ñu noonu lañ ko sante ci biir loolu itam la ñuy waxee ne alhamdulilah xel dal na ndax sëñ Muntaxa nag dafa jiitu ci yoon yi ba sori ca lool ndax deux cent millions du ay am na lu man doonte liggéey bi yaatu na lool nag ndax bu ñuy xayma ci liñ jàpp ne lu mu gàtt gàtt mënees na ko cee def mooy lu mu néew néew ma war a cee ma a def 600 millions ci li ñu war a def ci diggante xaalis ak nature nature waxaale wu nag yenn yi nga xam ne nii it fonctionnement lay jëm muy jëm ci wàllu matériel kon mën naa dem 600 millions mën wax ne rek bu ñu waree tàmbul te jàpp loo xam ne nii mën naa jëriñ nit ñi lu mu néew néew li minimum mooy di nga générer 600 millions moom mu jëm ci wàllu liggéey bi ci loolu itam lañuy ñuy waxee ne yitte yi bari na xaalis bi alhamdulilah sëñ bi dugal na lu am solo ni ko sëñ Youssou waxee itam murit yaa ngi ñëw di wuy si loolu itam liggéey nañ ci ci ak jàppandal ngir mën a fexe ba yombalal leen participation yi te mooy wut ay compte bancaire yu xaw a yaatu banque yi sax ñu ngi ciy jàppale ndax ñu bari ñu ngi ñëw di wuta bokk ci ñi nga xam ne ñooy générer xaalis bi euh, waaye itam Euh, ubbi nañ ay yoon yi nga xam ne dañ ñi nga xam ne dañoo bëgg a participer ñoom itam wutal nañ leen ay yoon yu ñu mën a jaar pour mën a yombal seen participation ni ki transfert d'argent yi ni ki euh, Wave Orange Money e-money euh, wala Free Money bokk yooyu lañ amagun ci yoo xam ne nii mën nañoo dimbali ci yoon yi nga xam ne nii mën nañ faa jaar ci loolu itam dañ ci waxee ne malgré loolu lépp liggéey bi lu yaatu la te dégg ngeen sëñ Mountakha ci njàmbaar gi ak gëm gi sëñ Tuubaa ak Pastef bi muy xalaat sax def ay logements sociaux yoo xam ne daf koy may wala mu recaser ñi nga xam ne euh, ñoom la ñoom la mbir mi tegu seen kaw loolu nag ni ko kilifa yi waxee yi jiitu sëñ Youssou ak sëñ euh, euh, li ko sëñ Youssou waxe ak sëñ Mamor mooy xam nañ ne état la war waaye sëñ Mountakha moom sëñ Tuubaa rek la teg kanamam te bu ko xasee gis dootu gis dara te gëm na ne sëñ Tuubaa tëlewul dara te effectivement loolu it mooy dëgg looloo tax lépp lu mës a taxaw du ci xaar kenn lam ci war a def dana ko def waaye ubbil buntu itam ñi bëgg lu baax yàlla man loo leen dara ñu mën cee def dara ci loolu la ñuy waxee ne kon liggéey bi yaatu na sëriñ bi jiitu na ci am na ñu topp ci gannaawam waaye nag kenn wër a taxaw ndax lii liggéey bi moom bu ñu ko doon seet dëgg dëgg dëgg te xam xel ne bu ñu mënoon a defar assainissement wu dëkk ba mu baax sax duñ ci xaar kenn mën nañoo jàpp ne kon liñ soxla lii di amagoon lu tuuti la ci te it war naa mën a nekk ndax sëñ moom fa mu xool sori na donte lii moom urgence la ci la ñuy tàmbulee di wax ne kon yi nga xam ne liggéey bi yittewoo na ko li ci jiitu mooy ay koppar comme ni ko sëñ bi defee waaye itam matériel am na ñu ci participer waaye itam lañ ci soxla euh, doyagul te mooy lu mel ni ay ay moto pompe lu mën a génne ndox yi ci kër yi ak mbedd yi ak la muy àndal ni ki ay ay raakool wala ay tiwo parce que buñ ko buñ ko amul it dañ koy jëndi lépp ci biir liggéey bi lay daal di dellu waaye itam carburant bi nga xam ne mooy doxal moto pompe yi li ciy dox xaalis bu baree baree baree ngi ciy dugg am na ci loo xam ne nii euh, ñi fi nekkal état am na luñ ñu ci joxoon waaye itam weesu nañ ko bu yàgg am na ñoo xam ne loolu lañ participer waaye fi mu ne nii ci jëndum carburant lañ toll pour wax ne na kon ba tey liggéey bi soxla na lu jëm ci carburant lu jëm ci ay auto vidange dañ ko soxla woo bu baax a baax ndax am na mbir mi fu muy yeggit ka nga war a génneel ndoxam bu fekkee réseau assainissement amu fa wala jegewu fa boo ko mën tiire mu dem te mënut a ñàkk faaw di nga jéem a tiire ndox moom ba tey ci ndimbal li itam daf ciy dugaat ndax da ngay xam ne am na koo xam ne ni bii ndox mi ñëwee li remplir kër remplir ay bedd du fa bàyyi ay fosse kon su continuer bëgg a dëkkaat ci kër ga te loolu itam am lu mu laaj ci ay koppar ak jamono ju naqar rek leneen la koy war soxla nañ ay autovidance ak lépp daal loo xam ne matériel la boo xam dana aajowoo ci mbir mi soog a ñëw ne ci wàllu dund ñu nga xam ne nii bi ndox mi ñëwee seen kër yi wale seen dund yi dafa yàqu am na ñoo xam lu baree bari lañ ci yàqule diggante ceeb ak suukar ak euh, yu baree bari yoo xam ne ab dund la loolu itam ba tey ñuy wax ne ci liggéey bi la bokk te dañ ko ciy aajow alhamdulilah moom itam am na ñoo xam ne seen participation ci côté boobu la te mën nañ cee joxe euh, ay am solo commencé par commune bu Touba am na lu mu ci dugal te mooy valeur 60 millions yoo xam ne lii def koo jënd ceeb lii diwlin dugal ko waaye itam Euh, Sonatel taxaw na taxawaay boo am solo bu ràññeeku te mooy jënd na lu tollook cinquante million ci diggante euh, ceeb ak diwlin ak suukar moom itam participé ko bokkul ak joxe quinze millions yoo xam ne dafa ne aw waañ la koy def comme ni ñu ko doon defee ci màggal gi yóbbu ko foo xam dañuy togg di joxe loolu it muy participation bu am solo bu ràññeeku boo xam ne wax dëgg ñu ñu war a kañ lañ donte man nag loolu sax du sama mbir waaye ki may jàppule ci côté bi ma féete te ràññeeku ca foofu laay waxee rek ngir soññeeku ñi nga xam ne loolu mooy mooy mooy seen mbir euh, ku mel ni soxna Bally Mountakha ak cinquante tonnes ceeb loolu itam lu remarquable la lu am solo la yooyu yi daal la ñuy wax ne moom liggéey bi aaje woon na lu baree bari waaye yii ñu lim ak yeneen yu ni demee ñoo ci gën a ràññeeku kon ñu ngi wéy di insisté ci loolu di wax itam ci participation yi nga xam ne ni vraiment yu yu yu yu rafet la yu ràññeeku la mooy taxawaayu Serigne Mbaye Sy Mansour xam ne dëkk bi am na jafe-jafe te am na ab dëkk ma ndax ay bokkam a fi nekk ay bokki jullitam a fi nekk mu yónni ndaw ci sëriñ bi yëkkati xaalis bu bari jox leen ne leen maa ko participé ci liggéey bi loolu itam vraiment ñu ngi koy rafetlu xam naa li ñu ciy dollu rek mooy dimbali euh, sunu bopp sax laay wax waaye ak ñi nga xam ne am nañ yéene te bëgg a dugg ci liggéey bi te mooy banque yi nga xam ne am nañ fa ay compte yi nga xam ne opérationnel la tey jii buñ ci bëggoon a dugal dara wala ñu am fa compte mën nañ cee defee ay virement ñu wax leen ne banque islamique euh, am nañ fa compte junnatun liman nazamahu am na fa compte BHS am nañ fa compte Ecobank am nañ fa compte autre Otar Otar am nañ fa BND am nañ fa compte LBA LBA waa ak UBA UBA waa ak BCFI ak FN banque yi mooy yi nga xam ne amagu nañ ko tam opérationnel am na yeneen yi tam yu ñuy démarché yoo xam ne xëy na Euh, sotteegul waaye bu sottee mën naa gën a yaatal liggéey bi di wax ne daal liggéey bi moom tàmbali nañ ko euh, mbir mi itam dayo bi foo ko takk wees na ko ndax ni ko waxee daanaka ay quartiers yi lëmm yoo xam dafa dafa dafa lap ci ndox mi sëñ Youssou wax na ko léegi neen lu mat 500 kër yoo xam ne génn nañ seen i kër loolu euh, problème la waaye am na ñoo xam ne ni ña nga des ci seen i kër waaye des faak ay jafe-jafe ak ñoo xam ne nii daf leen a yàqal lu baree bare bare kon mbir mi daal yaatu na yaakaar naa ne ku ne xaj na ci te képp ku bëgg lu baax wala ngay taxaw ci wàllu humanité ñun taalibe murid yi moom dañoo jëlale ñun ndigal lañu am ci sóobu ci mbir mi def ci lu ñu am ngir sàkkoo ko ngërëmul sëriñ bi ci ndigalu Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye keneen ku mu mën a doon te gis ne lii gis nga ci sa bopp loo ci mën ci jàpp ci ngir mu mën a yéwén baax na soxla nañ lépp nag technique matériel xam xaalis nature lépp euh, liggéey bi aju woon ko kon daal foofu lañ ci taxaweendi jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf sëriñ euh, Cheikh Abdou moom itam euh, bokk ci waa commission sociale ñoom itam di amoon liggéey bu am solo ndax li ko sëriñ bi waxee léegi rek ñoom yaakaar naa ne li ëpp ci liggéeyu terrain bi ak techniciens yi ñoo koy amal ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne nii ñooy recenser mbokki taalibe yi. ñoo leen di fekki ñoo leen di ñooy sa ñooy séddale li nga xam ne mooy ndimbal yi loolu mu nekk liggéey boo xam ne nii tàmbali neen ko sëñ Abdoul Ahad Bousso bokk ci commission boobu teewal leen kon sëriñ bi ginnaaw bu ñu la joxee kàddu nga daal di nuyoo seen liggéey ba ngeen ko tàmbalee ak léegi fan ngeen ci tollandi ak yan xayma nga mën a joxe wala yan euh, information nga mën a joxe jëmale ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne nii commission sociale gis nañ ne moom sax dafa yaatu lool euh, ñu ngi koy def ci biir kuréel gi. day def bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di tàmbalee sunu nuyoo ak sunu ziar ci Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi loolu te wér te mottali ay yéeneem te ànd koog moom. Euh, commission sociale bi nga xam ne mi ngi aju ci junnatun liman nazamahu nag mi ngi taxaw ci bi comité bi taxawee rek muy comité bi nga xam ne moo la sëriñ bi taxawal te tudde ko tur woowu ma wax léegi lii ay yitteem itam yi mu war a taxaw mooy saytu mboolem ñi nga xam ne gàllankoor bii am ci te jukkee ci ndox mi wala wal mi euh, laal na leen ñooñu ñooy ñan fan la ñu dëkkee nan la leen laale yan lan yan yan yàqu-yàqu la def ci ñoom suñu ko xamee ba noppi ñu jéem a saytu ay ndimbal yoo xam ne dana mën a jëm ci ñoom ci mboolem xeeti ndimbali ni nga xam ne noonu la ko ñi ma jiitu waxee euh, bu ñu jotee ci ndimbal yooyu ñu fexe ba ñooñee jot ci loolu rek ci tënk mooy taxawaayu commission sociale euh, ànd nañu ko nag ni ko ñi ma jiitu waxee woon ak état bu Sénégal ci euh, teewaayu gouverneur préfet ak sous préfet taxawal ay équipes yoo xam ne dañuy dem fekki nit ñi ci barab yi nga xam ne fa la ñu dëkk ngir recenser leen xool yan barab moo ëpple lu fa yàqu ñan ñoo fa yàqule nu yàqu-yàqu yee demee ñu tënk loolu lépp ci ay benn document mu nekk benn recensement boo xam ne ci base boobu ci la ñuy doxal ngir mën a euh, jokkale ndimbal yi ba mu àgg ca ñooña ci mboolem xeetu ndimbal boo xam ne soxla woon nañu ko te mu jàppandi fi ci biir loolu nag ñoom amal nañu liggéey boobu ba fii may wax ak yow mi ngi ci euh, sottite de nga xam ne xëy na ay joyante yu ndaw rek moo ci des ngir mu mën a taxaw su taxawee rek ci la ñuy sukkandiku nag ngir mën a tàmbali liggéey bi diiru boobaak léegi nag am na fi yoo xam ne moom jot naa am yi jot a am bokk na ca am na ci ay nit ñoo xam ne fa dëkkoon mënatuñ faa dëkk amuñu fu ñu dëkk ci biir loolu yàlla def na kuréel gi am na ay bokki taalibe yoo xam ne able nañu ay kër am na it barab boo xam ne kuréel bi taxawal na ko ci jaaree ko ci euh, benn faron bi nga xam ne mooy Touba ca kanam foo xam ne dañ ko tuddee woon kër wallu donte àggagul accéléré nañ ko ba ay nit mën faa nekk ñu dolli fa ay ay tànt euh, ba mbooloo mu bari fii may wax ak yow nga ca barab boobee ñu di leen saytu di jéem ci lañ man ci taxawu leen ci xeeti taxawu yëpp seenum dund ak yeneen ya ca war la les ca man lépp ñi di ko def euh, ñi ngi rafet lu taxawaayu euh, Sonatel ni ko sëriñ Abdoulaye Mbacke waxee léegi xëy na ñu ngi ciy jàpp ci fan yi taxawal nañu waañ woo xam ne di fukki fan xëy na danañu taxawu ci euh, barab boobee di leen toggal naka noonu it am na yeneen i barab yoo xam ne euh, taxawal nañ ko ci ay sites de recasement yoo xam ne euh, mat na lu mu néew néew juróom-benn wala juróom-ñaar yoo xam ne yóbbu nañ fa mbooloo mu bari moo xam ne lu ma téeméeri boroom kër ak nangam nekk nañ fa lu ma téeméeri nit ak juróom-ñeent yóbbu nañ leen fa lu bokkut ak barab bu mag boobu nga xam ne li ëpp ci mbooloo mi foofa la ñu nekk loolu nag day tegtale ne kon commission bi mi ngi jéem ngir xet li nit ñoom teewul nag ba léegi am na nit ñoo xam ne ñu fu ñu nekk euh, am na ñoo xam ne it ñu ngi ci seen i kër yi mbokk am na ñoo xam ne it ñoom ñoo taamu ñàkk génn seen i kër donte jafe-jafe yi metti na fa lool nag donte jafe-jafe yi metti na lool ci barab yi waaye teewul ñoom ñu tànn nekk seen i kër ñooñu it Euh, ñuy xool nan lañ leen fa mën a fekkee ngir dimbale leen nañ leen mën a fekkee ngir dimbali leen mooy am na ci ñoo xam ne marché yi ñu dem yàqu na mënatuñ fa dem ngir wuti dara faaw ñu jëm a seet lu ci leen mën a jàppale ci am dund am na ñoo xam ne ni ko sëriñ bi waxee léegi seen i foos moo yàqu euh, wala mu fees wala mu nàngam les ca man des na ko ca def am na ñoo xam ne itam euh, faw nag fañ nag fañ nekk des leen fay fekk jële leen fa yóbbu feneen ak lu mën a xew loolu yëpp ñu ngi ciy jéem a taxaw ci ndigalul sëriñ bi kon daal commission sociale bu ko doon tënk mooy xool yan jafe-jafe la am jéem a dox ci nan lañ mën a tàggoo ak jafe-jafe yooyu loolu rek mooy taxawaayu commission sociale te loolu ñu ngi ciy jëm liñ man waaye nag dafa laaj ñu nas ko dafa laaj am nos ndax mbir mi dafa yaatu ba àgg ci jéggi dayoo ndax fi muy wax ak yow mën naa ne lu ëpp lu ëpp fukki junniy boroom kër mbir mi laal na leen nag neexut a saytondoo ci boo ko nësut waaye sëriñ bi nag daf ñoo sax def noo cax ci tur wi nga xam ne moom la tuddee mboolaay mbootaay gi wala mbooloo mi junna la waaye ci kan liman liman nazamahu ñi nga xam ne ñoo ko nos te nos mooy organiser bu fekkente ne nosuñu ko organiser wuñ ko mën nañ cee nekk di ci lat lat lart lart ba sonn waaye dara du jàkk nos googu nag moom la ñuy jéem a tënk moo tax sëriñ bi boole mbooloo yi mu boole. ngir ñu te am ci ñoom yaakaar te it ñuy mbooloo yi yaakaaru ngir ñu mën a nos ba jafe-jafe bii am waxuñu ne day jeex waxuñu ne mën nañ koo teggi waxuñu ne mën nañoo delloo nit ñi la ñu amoon waaye lu néew néew ñu taxawu leen ba kenn ku nekk mën a delluwaat ci liggéey yi sunu borom wërsëgalaat ko lu toll ne la mu amoon loolu la ñu wax. kër yi nga xam ne ñu ngi koy joxe it waxuñu ne dañuy may dañuy maye ay nit ñi dañoo maye seeni i kër déedéet dañoo able ay kër kër yi ñu able it loolu day baax ñu wax ko ñi nga surtout ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal euh, dañuy able ay kër nit ñi mën faa nekk ba ndox mi wàññi ko ñu delluwaat ci barab yi nga xam ne foofu lañ jóge woon euh, lool mooy taxawaay bi ndax léeg-léeg nga dégg gis ko woote jàpp ne dañuy maye kër yooyu wala yu mel noonu waaye kër yi ay jullit ay murit ay jullit yu am ay seen i kër xam ne seen i mbokki jullit seen mbokki taalibe am nañu ay jafe ñu génn seen i nekk yenn ci seen i nekk ngir mën koo able wala kër yoo xam ne nekkuñu fa woon ñu man koo able loolu mooy taxawaay bi te noonu it la ko sëriñ bi sàkko woon ci bokki taalibe yi te loolu mi ngi am kon nag ñu ngi tàllalaat sunu loxo mboolem koo xam ne am na kër gu mën a able wala moo am ndimbal ndimbal yi la tàmbalee ci lu ñuy sol tàmbalee da dal wu ñuy sol lu ñuy jëfandikoo ci wàllu ñam lu ñuy jëfandikoo ci wàllu ndox lu ñuy jëfandikoo ci wàllu ay détergent lu ñuy jëfandikoo ci wàllu lu euh, euh, ñuy pomper ngir nit ñi mën faa dëkk ak taxawaay yi mu war yëpp ñi ngi ci def ñuy sant nag district bi ndax ñoom itam wax dëgg yàlla bi xew-xew bi amee ba léegi jafe-jafe bu ñu am ci wàllu sante bu ñu leen wooyee ñëw nañ ngir taxawu ñi nga xam ne ñoo fa nekk may fàttali ne commission sociale bi am na sous commission boo xam ne mooy taxawu lu jëm ci wàllu hygiène ak sante ñi nga xam ne jafe-jafe bu am ci côté boobu rek ñoom ñooy taxaw dox diggante euh, district bi ak mbooloo mi nga xam ne ñoo fi nekk Euh, fii may waxee ne jàmp jàmpaayu mbir mi ak jafe-jafe yi tax na donte tàmbalee seddale dara tànn nañ ñoo xam ne gis nañ ne yëfi jàpp metti na ci ñoom loolu ba mu ëpp lu man ñaar téeméeri nit yoo xam ne ñu ca nekk euh, comité bi wala junnatun bi euh, sàkk na dara loo xam ne dimbale leen ko ngir ñu mën a wóyal seen dund foofu daal fi lañ tollagoon Serigne Abdoulaye di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Abdoulahat muy taxawaay bu am solo boo xam ne nii waa comité waa commission sociale ñu ngi koy amal ci biir kuréel gi di junnatun kon dañuy jox euh, sëriñ euh, dañuy jox sëriñ Jili Lo rek moom itam mu daal di euh, bokk ci comité de pilotage bi waaye bokk itam ci commune de tubaa di benn ci mbooloo mi nga xam ne ni te jii suñu borom boole na leen ak ni ñu ko waxee léegi Touba ca kanam xisbu tarxe ak mboolem jullite ak taalibe yëpp rek ndax liggéey bi moom ni ko sëñ bi waxee léegi rek nosu gi rek moo tax ñu ne kii ak kii ak waaye ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk sëriñ bi ak yéene jàppal ne yaa ngi ci biir kuréel gi di junnatun kon sëñ euh, Jili ñu jox la kàddu gi rek ci banqaas bi nga féete rawatina ci euh, wàllu liggéey bi fi mu toll lan nga ñu ciy tënkal. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di tàmbale ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fii te ànd ak wér. ba li mu yéene liggéey lépp yàlla def mu eggale ko te ñu ànd koog moom di nuyu di ziar suñu kilifa yi ñu nekkal ci jataay bi euh, ñi ànd ak ñoom ci ci kuréel gi nga xam ne mooy junnatun liman nazamahu di kuréel gi nga xam ne moom la sëriñ bi taxawal ngir mu dimbale nit ñi ci jafe-jafe bi ñu nekk di mbënn mi euh, bi ñu taxawalee kuréel gi nag nga xam ne dafa am comité de pilotage boo xam ne moo nekk ci kaw di ko doxal bi ñu organiser nag liggéey bi ci lañ taxawale commission administrative boo xam ne eh, moom mooy coordonné liggéeyu liggéeyu commission yëpp ci ci ci biir kuréel gi ngir wane ne li sëriñ bi bëgg muy dajale eh, Touba ca kanam bu Tarqiyyah ak mairie bu Touba eh, dañ ko war a wutal nag aw organisation bu dëgër boo xam ne lii sëriñ bi bëgg ci liggéey bi danañ ko mën a def teg teg ko ci aw yoon aussi ndax liggéey boo gis dafa war a tegu ci aw yoon loolu moo indi commission administrative nga xam ne euh, objectif am mooy di planifier activités yi nga xam ne nii moom la kuréel gi war a def euh, planification bi nag dañ koy ànd ak fu ñu toll waa comité de pilotage bi nga xam ne ñoom ñooy joxe directive yi bu ko defee ñun ñu man koo mettre en œuvre di accompagner commission yi aussi ci xam seen i liggéey yi ñu war a def euh, commission administrative da koy ànd ak ñoom bu ñu demee war koo mettre en œuvre aussi dañ koy ànd ak ñoom duñ yam foofu waaye day am suivi day am évaluation ndax comme ni ma ko waxee rek liggéey bi liggéeyu sëriñ Touba dafa kuñ ko jox da nga ko war a jox yitte jox ko dox def ci fulla def ci fayda bu pare teg ko ci aw yoon ndax loolu mooy li sëriñ bi bëgg kon loolu moo tax ñuy doxale noonu bu ko defee ci biir commission commission bi tamit aussi dañ ko pour pour pour partager liggéey bi pour mu gën a yomb dañ ko dañ ko wutal ñetti kuréel ci biir benn bi mooy secrétariat nga xam ne eh, lépp lu jëm ci wàllu papier kayit logo yéeg antenne cachet ak yooyu yëpp ñoom ñoo koy def ak rédaction nag courrier yéeg li ci jëm ndax lépp luñ liggéey fii wala lépp luñ war a def ci kayit lañ koy bind mu jaar fa mu war a jaar ba àgg fa mu war a egg bu ko paree lépp aussi documentation baa ngi fii dañ koy dañ koy jox kilifa yi nga xam ne liñ bëgg objectif yi mooy su demee ba jeex lépp loo xam ne def nañ ko fii dañ ko yëkkati delloowaat ko sëriñ bi nga xam ne mooy borom liggéey bi waaye nag bu boowaat képp koo xam ne soxla nga luñ fi doon def da nga mën a gis fu mu jaar fu tàmbalee ba fa mu lépp dana nekk sur place loolu ci ci ci objectif yi la bokk. bu defee commission bi tamit mooy convoqué réunion yeeg ak ak ak di defar defar PV yi di ko jox kilifa yi nga xam ni dañ koy soxla loolu ci ci la bokk am nañ ab benn structure boo xam ne tamit mooy relation publique nga xam ne diggante structure bi ak état du Sénégal wala yenn. yenn yenn yenn yenn organisme yi nga xam ne dañuy ñëw di intervenir loolu am nañ commission boo xam ne moo koy lijjante man sax ca boobu laa bokk euh, dama fay teewal mu Moustapha Dieng mi nga xam ne mooy président commission bi euh, loolu loolu loolu beneen kii la am nañ tamit permanence boo xam ne ñoo nekk fii ci kër gi nga xam ne ñoo fiy jiitu ñoo fiy mujj pour di dalal nit ñi di leen orienter euh, réclamation yi nga xam ne am na ak ñi nga xam ne dañoo soxla ay yitte fii ñoo leen di dalal di jël seeni di jël seeni i di jël seen i di ko mën a bind di ko eggale ci kilifa yi euh, commission bi tamit bis bu yàlla sàkk suñ demee ba julli timis ba noppi danañ def li ñuy wax réunion de briefing mooy commission yi nga xam moo nekk ci kuréel gi yëpp dañ leen jël commission par commission ku ci nekk ñëw def sa compte rendu journée bi li nga ci liggéey lépp nga def compte bi ak suba lan nga nar a def ñu lépp dañ koy noter sur PV suñ paree dugal ko ci machine bi tiire ko jox ko kilifa yi lañ war a def aussi euh, expression de besoin yi ñu jël ko bam comme niñ ko waxee fii lu fiy génn un franc sax day jaar ci fa war a jaar jaar ci kayit ñu bind ko indi ko commission administrative ñu ñu ñu ñu ñu jàngat ko lu mu ci mën a doon ñu jàllale ko ci kilifa yi ñu valider ko ñu doog ko indi yóbbu ko commission finance ñu doog a def lañ ci war a def ngir mu mën a génn loolu dañ koy def bi su Euh, ba nga xam ne euh, bis bu set danañ mën a xam commission yi lan lañ liggéey subaat lan lañ war a liggéey loolu commission administrative mu ngi koy def euh, di wax ne daal fii ku fi ñëw da xam ne kuréel gii sëriñ bu teg kilifa yi ci nekk liggéey bi ñuy def liggéey bu sérieux la liggéey bu aw yoon la liggéey bu tegu ci yoon woo war a tegu la bokk te loolu ñu ngi ciy dox bu dégg bëccëg ah, luñ ciy def nag amul dara lu ñuy réeroo suñu kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ñu tegal feuille de pour ñu war jaar. loolu mooy taxawaalu taxawaayu commission administrative te loolu bis bu set ñu ngi ciy def euh, en relation ak am na sax ay yeneen yoo xam ne nii ñu ngi koy xalaat yoo xam ne kilifa yi jox nañ ñu ko ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jéem ñu ngi koy jéem doxal suba sax dañoo jàpp sax ne loolu après nañ ci wax kilifa yi chaque chaque semaine ñu def ñu def réunion intercommission yoo xam ne dañ mën a évaluer semaine bi li nga xam ne moom lañ ci liggéey commission yi jokkalante ci seen biir aussi ku ci nekk loo am ci sa soxla par rapport ak beneen commission ñu mën koo jokkalante. mën a tëral programme semaine bii ñuy ñëw loolu daal sëñ Faye ci tënk naaw waxtu wi dañuy xaw a kii loolu lañ mën a tënk ba ca ba ca kanam incha allah. kàddu yu am solo yooyu mu bokk ci commission administrative administrative ni mu ko waxee léegi rek ñoom ñooy euh, saytul mbooleem liggéey bi rek maanaam commission yeeg ni mu ko waxee. waaye ñu dégg ci itam liggéey bu nosute tënk lool lépp rek euh, ngir euh, euh, dab bànneexub sëriñ bi wala bëgg-bëggam muy taxawu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ci xew-xew bi nga xam ne ni ndogalub suñ borom la kon dañuy jox sëriñ Cheikh Gueye bokk ci technicien yi nga xam ne nii ñoom ñooy dem ci terrain bi ndax yaakaar naa ne boo déggee niñ ko waxee léegi ni ngeen ko seetaane ci image yi bi mbir mi tàmbalee ak léegi niñ ko waxee ci site yi ndox mi ëppee pompage yeeg lépp ñoom ñoo koy coordonné doon ay équipe yu yaatu nag xam naa dina ci dikk tey mu teewal leen kon sëñ Cheikh liggéey bi bi mu tàmbalee ak léegi ëpp na ayu bës yaakaar naa ne liggéey bu am solo la liggéey bu dañuy bañ a utiliser baatu métti waaye liggéey bu am solo la ci euh, taxawaay bi nga xam ne ni yéen a ngi koy taxaw mbokki taalibe yi ci ay gox yu fasantikoo ba mu tàmbalee ak léegi foo leen toll ak lépp loo ñu ci mën a euh, tënkal bismillah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu suñu kilifa yi fi toog bi jéggul bu baax a baax nag ci kàddu yi ñu yëkkati kanam kilifa yi liggéey bi naam metti na mettiwul ndax booy liggéeyal Serigne Touba doo ci yëg mettit moo tax du metti benn yoon ci ñun liggéey bi nag depuis ñu commencé ko ba léegi wax dëgg yàlla mi ngi am amélioration bu baax a baax surtout nag côté bi nga xamante ni moo féete Daaru Xuddoos ak euh, Daaru Minam ndax secteur yooyu bokkoon na ci secteur yi gën a foofu surtout rawatina daaru minam dafa bari kër yoo xamante ni miir yi dafa daanu te bi mu daanoo ndox yi dafa dugg si biir kër yi ca li ci gën a doy waar daf cee bari ñoo xamante ni seeni kër daawul am ndox ñu xëy xëy am ndox xam nga ki këram daan am ndox sax daan du ko préparé waaye ki nga xam ne këram musul am ndox mu jékki miir bi mu takkalool daanu ndox mi dugg ci këram fekk lu fa nekkoon ci bagage lépp mu yàqu ko loolu metti na trop waaye nag suñ borom def na ci sutura ba côté daaru mi na bi wax dëgg yàlla euh, mboolem kër yi fi nekkoon cañ xam ni fii amoon na ndox yàlla dogal na ni foofu moom dindi nañ ko ba ndox bi génn na ba fi mu ne nii seen borom ñi ngi dellu siwaat ci seen i kër boo demee tamit Daaru Xuddoos ci côté kër suñu son yu bëgg jàpp euh, kër Xaadim géey ba bi ngay egg ci station Daaru Xuddoos foofu tamit jafe-jafe yi fi nekkoon yëpp yàlla dogal na ni suñu borom saafara na ko ndax dañ fa Daaru Xuddoos moom dañ fa obligé yóbboon fa ñeenti moto pompe yu mag yoo ba xamante ni benn bu ci nekk day génne 600 mètres cubes par heure. quatre motopompes yi bi ñu ko cumulé dañoo jël ay motopompes yu ndaw tamit dugal ko ci kër yi bi ñu jëlee mbedd mi ba mbedd mi jeex ñu jël moto motopompes yu ndaw yi dugal ko ci kër yi mu indi ko ci ci motopompe bu mag bi yu pompe bu mag yi yóbbu ko ci réseau bi moo tax Daaru Xudóos tamit yàlla dogal na ni foofu moom alhamdulilah nit ñi tamit dellu siwaat mën nañoo dellu siwaat seeni kër ndax ndox mi génn na ci kër yi mbedd mi tamit ndox yi génn na ci fi mu ni daal ka bi ci gën a nekk lu urgence war a jëm ci mooy li ko jàppee sura jëm Gédé ndax sura ak gédé ndox mi dafa yàlla dafa doon ndox mi dafa xëttaloo amul fenn fu ma am espace boo ñëwee li ko dalee kër sëñ Maam Mor Mbacke xam si diine jëm fi ñu naan séng ga continuer jaar pël ga dem kàmbi sura yi ba ba ngay àgg kër Seex Bas lépp benn vague la def ndox mi dafa jàppaloo moo tax fi mu ne nii depuis mu tawee ba léegi moto pompe yi ñu fa teg day daw 24 heures sur 24 mais boo ñëwee da ngay jàpp ni pompe yi liggéeyuñu dara parce que ndox mi fa muy jógee mooy sori. mairie pompe bi nga nekk xam ne moo nekk seen nga day xëcc ba ndox mi nekk kër Cheikh Bass tànk ci kaw jeexul point ndax point baa bi moo moo nekk seen gi foofu la ndox bi di jógee di wàcc di ñëw fi ne dañu obligé teg fa ñaari moto pompe bi xam ne bu ñu dawalee bii guddi gi dawal bii bëccëg gi ndax mati pompe yi mënuñu daw 24 sur 24 da ngay dawal bi guddi gi bu bëccëgee bu bu bëccëgee boo xeesee démonté monté beneen bi boobu tamit yendoo daw noonu la ñuy dem ci waaye fi mu ne nii mi ngi wàcce bu baax a baax a baax li ci gën a nekk jafe-jafe mooy réseau assainissement bi côté boobu dafa dafa dafa doxul boo xoolee li ko dalee euh, tali Cheikh Bass bi nga xamante ni moo jaar euh, ndéeg daqaar continuer ñëw kër sëñ Mamor réseau assainissement foofu dafa am jafe-jafe ndax station de pompage bi nekk kër Cheikh bas moto pompe yi daf ko ëpp doole fi mu ne suñu pompe yi nekk buntu kër Seex Bas ñun depuis mu tawee ba léegi mënuñoo fexe ba taal ko ndax saa boo ko taalee bu ñëwee ci station de pompage bi day yeex pompe bi daf koy ëpp doole ba da ngay obligé fay ko tey jii si bëccëg rek doon nañu essayé waat taal ko mais ba ñu bi ñu ko taalee une heure de temps rek ndox mi dafa commencé di duggaat ci kër yi nga xamante ni génne woon ko fay fay fay pompe yi foofu foofu nag euh, li ciy solution li ñu xalaat ne buñ ko amee mën nañ ci am ay solution mooy ñu wut ay raakool yoo xamante ni dina mën a jóge kër seex Bass yenn yi jóge kër Cheikh Bass sax dèjà am na benn pompe électronique bu fa nekk mais ba tey doyut dafa yeex waaye bu ñu amoon yeneen ci diggante bi fu mel ni sura am ko gede am fa ay raakol flexible yoo xam ne dina mën a ñëw ba buntu kër sañ Mamour ndax kër sañ Mamour dong nga mën a sotti ndox fi mu ne nii kër sëñ Mamour sëñ Mourtala secteur gede bépp foofu nga mën a sotti ndox bi fi ne nii boo demee néeg Dakar mi ngi doon am avancement mais yàlla dafa dogal ni tóokóor ba réseau bi dafa taxaw nii ndox bi ñuy sotti tookoor ba dafa mujj jaar ci biir tookoor bi bënn miiru tóokóor bi ba léegi day delluwaat di verser jiwaat njëg daxaar ca foofa ña fay pompe nunguwuñoo bàyyi su fekkee ñoom arrêté nañ sax jafe mën naa mais ñay pompe di indi foofu nunguwuñoo bàyyi ca ndox mi jaar na ci biir tóokóor bi bëtt na ko ba mi ngi delloowaat ndiir Dakar lafa doon jóge foofu tamit xalaat bi ñu ci am mooy suba incha allah bëgg nañ faa teg benn moto pompe bu mag ci tóokóor bi foofu indi ko ba ci station Daaru Xuddoos bi bu ko defee ndox bi nekkoon ci tóokër bi mën a évacuer dem ñu mën a xool lan moo waral doxul ñu mën a curer kanaal bi ndax xam naa kanaal bi dina jar curer même boo ñëwee euh, guy mbind tamit la même chose nga fay fekk boo ñëwee guy mbind booy génn ndox mi fi mu ne nii réseau bi nekk euh, buntu hôpital Ndaamaatu dafa am jafe-jafe fi ne nii boo sottee ci canal bi bu ñëwee ba hôpital Ndaamaatu ndox mi day ball day génn day refoulé waat ca bu refoulé bu ndox mi bare hôpital bi kenn dootul mën a dugg ci biir ndax li jaar ci buntu hôpital bi yëpp ndox lay nekk moo dafa mel ni secteur guy mbind bi fi mu ne dañoo mujj arrêté ndi box ba ba am solution ba mën a cure canal boobu nga xamante ni moom moo jógee ci buntu hôpital bi traversé ñëw ci ci jumaa ji ndax diggante boobu moo am jafe-jafe muy ay liggéey yoo xamante yu yu yu metti la waaye nag ñu ngi ci ñu ngi ñu mi ngi mi ngi amélioré bu baax a baax a baax daal bala ñu jël kàddu gi di ko joxaat sëñ Youssou wax nga yenn ci gox yi nga xam ne ni jamono yi euh, ay équipe ñoo nga fa di def liggéey bu am solo mhm. waaye dafa am ay euh, gox yoo xam ne ni ku tudd ndoxum Touba sa xel dem ci ñoom mhm. Daaru Rahman Ngiraneen mhm. Kër Ñang ndax mën nañoo am benn rapport de situation par rapport ak fi ngeen toll. xam waaw xam nga Kër Ñang moom li tax am kaawam di xaw a critique mooy Kër Ñang dafa sës ci basin bi ca basin bi pompe yi ñu yor bu ñu sottee ndox bu bari basin bi du ko àttan ndax pompe bi dafa am doole moo tax du ko àttan bu dee kaaw ngiraaneen nag ngiraaneen moom dafa nekk foo xamante ne dafa zone bu critique la ndax zone la boo xamante ne boo vidé woon ndox mi tey même bu tawut bu subaa boo fi ñëwaatee da nga fekk ndox bi moom tant nawet baa ngi am doo ko mën a liggéey ñun foofu chaque fois décembre lañ ko daan liggéey depuis 2019 ba léegi nii mois de décembre lañu fay dem génne ndox mi xam ne taw bi jeex na tant que nawet bi jeexul mënoo koo liggéey boo ko liggéeyee bu taweek bu tawut lépp dafay am ndox parce que foofu dañoo jàppoon ni réseau assainissement bañ fay def dina dox normal balaa nawet bi di ñëw mais yàlla dafa dogal ni réseau bi doxin bi dafa yeex ba nii may wax yow ba mu tawee ba léegi nii ndox maa nga ci kaw ci pompe yaa ngay dox kon réseau bi dafa yeex mënuñ fa def benn intervention fi mu ne nii boo demee quartier Maam Jaara installé woon nañ fa benn moto pompe boo xamante ni dana indi 800 mètres cube lay indi par heure ba commencé woon di ko doxal mais dañu mujj arrêté ko ndax boo ko indee ngiraaneen dangay ngay dolli ndox te ndox bi demut fokk réseau bi dox nga mën a doog taal pompe yooyu yooyu doog a mën a yem boo demee foofu mel ni fettoo foofu moom jafe fa am mooy amul fenn a sotti ndox bi loolu ngay fekk Kawsara moom ngay fekk guy ziar yooyu amul fenn foo xamante ne mën nga faa sotti ndox mi ndax amul yégewul benn côté canal bi kaaw ngiraaneen moom li ma leen ci mooy décembre rek incha allah lañ koy mën a liggéey def ay solution mu jeex incha allah Serigne Cheikh mu mel ni euh, leeral gi du mat a euh, du mën a ñàkk sëñ Youssou xam naa yow la ñuy joxaat kàddu gi sax ndax xam nga mbir mi moom ñëpp la dal bu nu limee ñee bàyyi ñi rek dañuy jàpp ne dañoo féete fee bàyyi fee waaye yéen ñi techniciens yi xam réalité terrain bi bu leen askan wi seetaanee dégg leen dinañ xam ne lii mooy réalité bi waaye sëñ Youssou buñ sukkandikoo fi ci sëñ Cheikh waxee léegi yéen ñi nga xam ne yéen supervisé liggéey bi yëkkanti woon ngeen seeni i jéego dem ci ay gox yu fasanti ko lu ci mel ni euh, Daaru Rahman ak yeneen yu ni mel kon mel na ni ni ko technicien bi waxee ñoom itam am na pàcc bu yaatu boo xam ne nii cërale leen leen ko ci liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk door a defaat benn jàngar rek ci uh, li fi jot a jàll ñu door a jox keneen kàddu gi bisimilah. jërëjëf. sëñ Cheikh Gueye ñu ngi koy sant bu baax. Mhm. ndax moom nitu terrain la. Mhm. te it uh, ñi mu ko àndal mooy commission technique gis nañ ne waxtu wu ne ñu ngi ci terrain bi loolu moo ko mën a may lii mu leeral bu mën koo leeral. waaye defe naa euh, li mët gën a xam mët a gën a insister mooy ñu bàyyi xel ne lii ñuy def ni ñoom beruwuñu di ko def dañ ko ànd ak service compétent de l'État loolu bëgg naa ñu xam ko ñoom ñii ak waa sapeur pompier ak waa ONAS ak euh, waa service di d'hygiène ñooy liggéeyandoo donc sur le terrain euh, dafa di nag bu xasee wax réseau de d'assainissement rek da ngay daal di xam ne ah réseau d'assainissement bu ñu ko waxee. Mhm. loolu du suñu compétence dinañ ci mën a xeex lu ñu mën. Mhm. waaye loolu dafay lu structurant loo xamante ne xam ngeen ne mooy jafe-jafe bi nga xam ne. Mhm. dee su ko mën a lijjanti fi saa si mu sotti fi loolu kon baax na ci pour nit ñi xam ko. xam ne Touba dafa màgg màgg goo xam ne assainissement mënta ñàkk. te réseau d'assainissement dafa am ñaar yoo xam ne dafa nuru lu lu lu jege te bokkul. eau pluviale muy maanaam ndox yi nga xamante ne dafay war a dem bokkul ak tamit eau usée li nga xam ne tamit dafa mel ni mooy fos yi ndax dox tuuti ba bu ñu doxee tuuti ba ci kanam bañ ne Touba kenn dootul vider fosse loolu dafa yaakaar ne murit bu ne war na koo yittewoo war na koo soxlawoo ndax euh, la nga doon def ci xaalisu finance day gën a xajaat ci leneen rawatina ci gan yi màggal yi seen Touba yi nga xam ne nañ ko war a def Euh, sëñ Cheikh li nga wax am na solo diggante euh, maanaam li nga tudd ba tudd Darou Rahman euh, xam nga tey jii réseau bi lii dem Darou Rahman jóge fa war a dem pof ji lu dëgg dafay loo xamante ne ñun rek àndoon naag monsieur le maire muy sëñ Abdou Ka ànd ak sëñ sëñ Abdou Lahad moom sëñ Abibou ñu ànd ak délégation ba ci gouverneur ak ñëpp parce que Daaru Rahman ñoom dañu am problème mooy ndox mi jóge fii kër ñang di dem ba foofu bassin ba da ko dul attan léeg day toj da gis ndox mi di génn di wal di jëm ci ay kàmb yoo xamante ne itam suuf rek la te loolu boo fa deful ouvrage suuf yooyu day màbb gis nañ fi ay barab yoo xamante ne ay accident sax daan na am ci ay xale yoo xam ne dañ fay dem donc ay zones yu ñu war a protéger la loolu nag euh, rawatina it ña euh, fa dëkk doon ñu am yar doon ñu fonk sëriñ bi kàddu sëriñ bi tax lu sëriñ bi bëgg rek ñu def ko waaye ndox mi ñëw foofu dafa war a ànd ak kaaraange loo xam ne waa Daaru Rahman dañ koo soxla waa waa waa Pouf di dañ koo soxla loolu defe naa euh, lu am solo la jëlal ndox waa ndog tamit tey ñëw nañ fi am na seeni tool yoo xamante ne ñoom loolu mooy seen économie ci la ñuy dund diggante naanaa diggante kaani gi wala tomate yi loolu ndox mi wal dem fa ba ba ba ba ba ko ñoom am liste yu yaatu ñu xam ne domage yu yaatu sax yoo xam ne boo leen gisee da leen di ñeewant te doo leen gis ñu génn naan dañ koy manifester wala dañ koy wax fu ñu ko war waxee dañuy ñëw rek wax ak seen i kilifa xam ne sëriñ bi moom bu leen ne woon sax bu leen kenn déggati kenn du leen dégg Euh, lii day catastrophe naturelle boo xam ne nun dañoo war a takkuwaat rek euh, daal di dolliwaat solidarité bi boole suñu bopp te xam ne ndimbalal suñu borom bu ñëwee mu woyof waaye menn moom moo ko mën a woyofal waaye nag balaa mu koy def dañuy jëfe ndigalam mooy dañuy boole suñu bopp la sëñ Abdou Lahad doon wax ne yàlla suñu borom amul xol waaye bu julli ñu boolee seen xol rek mu def ko muy xolam yéwé na lépp kon man defe naa loolu lay lay soññewaat di sant nag ñi ma ko àndal rawatina waa Touba ca kanam ils sont très dynamiques waaw Cheikh Gueye mii muy wax ni ci seen équipe la bokk ak ñeneen ñu bare boo demee ci fi nga xam ne moom la ñu wax euh, site de recasement bu mag bi muy wàllu foofu boo fa demee li fa nekk est-ce que ëppul juróomi téeméeri nit fi ñu doon te juróomi téeméeri nit yi yi nekk foofu fi ñu toll waxuma la seen lekk ak seen naan waaye waa Touba kanam ñu ngi xeex ba seen condition yi ñu fa nekkee mu mel ni kër yi njëkkoon dañ leen di jox ba di leen jox ay ventilateur yu ñu war a nekkee ñuy sant itam gouverneur ndax bi mu fi ñëwee ba ñu ànd fa dem gis na ne lii laaj na ak taxawu yable na fi indi ndimbal loo xamante ne ñoom la jëm loolu lépp tamit muy wane rek ne ñun liggéey bi bariwul liñ fi tudd nag te sëñ Abdou wax ko euh, ni ay besoin la waxul li nga xam ne mooy action état action état moom loolu wax dëgg yàlla am na ko habilité pour war cee mën a wax muy gouverneur wala ñama ko wax loo ñun ñu ngi liggéey ndoog ñoom parce que efficacité bi mooy résul mooy li li li ñu soxla woo waaye nag lii mu wax ne war nañ ko def ñun commission bi bu la nee minimum war nañoo génne gën ngaa néew entre six cent millions jëm sept cent dajale ko jëf ko loolu mooy ay action wu ndimbal d'urgence d'urgence loolu loolu kon defe naa su ko waxee jotewul dara ak li nga xam ne mooy action wu état ndax action état moom mi ngi dem ci gouverneur ñoom ñu ngi koy taxaw waaye wax dëgg yàlla taxaw boo xam ne ñun rafetlu nañ ko rafetlu nañ lépp liggéey bi benn liggéey la résultat bi moo ci am soxla moo ci am solo te ñoom bëggu sëriñ bi moo leen ñor ñun itam bëggu sëriñ bi moo ñor waaye dafay ñaar yoo xam ne jaxasoo gi du mën a ne moo tax ñun addiyee Cheikh Mamadou Mountakha ñaari téeméeri millions yi mu duggaloon ak dong yi li ñu indi loolu la dajale ci compte yi di xool nu mu gën a baaxee di ci rendre compte sëñ bi di ko exécuter kon lii moom dafa naa laa ne woon naa ko ci dolli rek. jërëjëf sëñ kon mu daal di tëjaale. jëm ci soññe rek euh, ci liggéey bi nga xam ne ni am nag tàmbali waaye nekk ci ndigal li ba keroog sëriñ bi nga xam ne moo joxewoon woon ndigal li rek wax ci leneen loo xam ne ni day jëm ci dakkal ko wala wéyal ko nga gën cee soññ mbokki taalibe yi. jafe-jafe yu bëree bëri la yoo xam ne gis nañu ne ay jafe-jafe la euh, bokk na ci jafe-jafe bassin bassin yi nga xam ne mooy bassin de rétention yi ndax ndox mu yóbbu ci ab barab mu dem bay loolu nga ñu fekk si loolu jar na bay xel bu baax a baax mooy lu mel ne Daaru Rahmaan ak ak côté yu mel noonu comme suñu cinéma dafa am solo loolu yu bare bëri yooyu moom liggéey état bi la ñun liñ man rek mooy jéem a din ndox mi def ko fa mu war a dem ba àgg fa mu war a àgg waaye sunu eh, sunu liggéey àggul foofu kon daal ñoo ngi wax ni rek sëñ bi moom mi ngi am bu baax a baax ñeewante ci ñëpp amit pas-pasu dimbali ñëpp ba ñëpp am jàmb yu ñuy ji ñu war a am ci fi ñuy dund kon ñoo ngi yeesalaat ak ak jaayante ak ak woote di wow mbokk taalibe yëpp ndax liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyloo taalibe ko war a liggéey li nga xam ne xeer duñ ci fekkaat moom ba tey mën naa nekk waaye liggéey bi moom nunu la ko sëñ bi sas ñun taalibe yi te yaakaar naa lu ko ko liggéey mi ngi fi ndax am nañ xam-xam bi ak pas-pas bi ak it mm, euh, mën-mën bi kon li des rek mooy gën a takkuwaat gën a soññantewaat te it nañ ñuy liggéey itam nga xam liggéey bi ñoom ñoom la jëm ñu tam ñu gën a am tuuti patience gën a am muñandiku gën a gën a xajoo ñi leen liggéeyal ak it bañ yàkkamti tam day jàpp ne kenn na la xañ jàpp ne séddale moo demee noonu faaw ñi am ñi duñu am waaye sëñ bu sañoon ku ne da toog sa kër fa nga toog lépp fekk la fa waaye nag àdduna bi doon noonu mhm. kon daal ñu gën a takkaat laxasaay yi gën góorgóorluwaat goor yéene ànd ñëpp topp ginnaaw suñu Muntaxa ñi nga xam ne moom la boole muy ñetti jumtukaayam mm, ci benn barab muy suuf tarxee ak maire rek ak Touba ci kanam ay jumtukaayam lañ mhm. bu ko neexoon tey jii mu xëy na ñëpp nekk leen benn bu faaw kenn du ci mën dara tey waaw dañ koy nangu mhm. liggéey bi tam xëy na ab liggéeyam la mu moo xam fa mu bëgg mu am fa waaye daal li jàmp nii moom mooy li ñu sant kon nañ ci def suñu yitte jëpp ba sëñ bi am li mu bëgg ndax loolu rek ci la suñu aajo di fajoo kon daal noo ngi jullit yëpp di woo mbokk yëpp di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nañu boole dimbule boole ñu defal ngërëmul Serigne Touba biir ak biti rek sant nañ ñëpp jërëjëf jërëjëf jërëjëf Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Modou Bousso Dieng ci kaddu yu am solo yooyu kon dañuy jox Serigne Cheikh euh, Abdou rek moom itam ay kàddoom kàddooy soññe lay doon rek jëmale ko ci liggéey bi ni ko waxee léegi Serigne bi bisimilah ok jërëjëf alhamdulilah xam naa waaw ni ko waxee rek man samay kàddu du ci soreet yi may wax daal mooy am na ndaw sas sas sas wu rëy rëy wu ama am solo boo xam ne Pastef ak jom moo koy sottal ak sotteem nag mm, lu baree bari xaj na ci ndimbal lay doon ci nun loo xam ne ndimbal li mën naa yaatu ba jullit yëpp xaj kon nag ñu fedd li laxasaay yi rek mhm. ndax nañ ko waxe sëriñ moom lii xalaatu boppam nosin wii mhm. aw xalaatinam la li ko firndeel nag mooy kuréel gi bi mu ko jëlee taxawal ko tëgg ko ci xasida boo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko moo ko def jëmale ko ci diggam ak boroomam muy junnatun li mën na sama xol la tënk xasida ga loolu nag lu rëy rëy la loo xam ne ñi nga xam ne dal na ci bopp directement muy mbooloom bu Tarxiya muy mbooloom mairie muy mbooloom Touba ca kanam am nañ defi defi bu rëy rëy bu ñu war a relever waaye nag ñoo murid yëpp a ko bokk ñoom murit yëpp a ko bokk ak képp ku bëgg lu baax kon nag ci loolu la ñuy soññiwaat rek di wax ne liggéey baa ngi ni yaatu na yaatu na lool ndax mënoon nañ cee dem kat ba sëñ bi eh, lim nu santoon nu def ko waaye yeneen buntu ubbiku ci ñu far lépp luy assainissement wu Touba sax ñu far réglé waale ko ci ndax xam nañ ni li sëñ Touba ñaan ci dëkkam bi ak doole sëñ Touba lii lu tuuti la ci kon nag pas-pas bi bu yaatoo eh, te xel yi daal te nos bi am comme ni mu amee nga xam ne structure la boo xam ne bi ñu dajalee mbooloo yi ba tënk ba teg commission yi ba pare waxuma la def lii waaye mën naa defaat leneen ak leneen ak leneen lu baree baree bari loolu lépp taw feex la ci man daal ñu ngi soññaat suñ bopp di soñ ñëpp ñu gën a taxaw temm rek te it sax mba ci ñi nga xam ne dañ leen di dimbali ñu seema xool lañ mën a jàppe ci liggéey bi ñu jàppe ko ci ndax liggéey bu yaatu la ñu ngi nii tàmbali def nañ ayug bis wala jëm ci fukki fan waaye xamuñu kañ la ñuy taxaw nag loolu nag moom liggéeyu sëñ Tuubaa ni mel ak murit it moo mel noonu ndax nit bu xasee jaayante moo wutut boppam waaye ñu xam ne daal noog murit yëpp ko bokk fu waay mën a ne daal te lii nga man ci dara luy tax li sëriñ bi bëgg mu am ko am nga ci aw sas yow itam kon noo ngi sant di gërëm ni ñaan yàlla mu dool li doon dimbali dool li nu tawfeex ndax sëriñ bi dig na nu ne danañ ci dajee ngërëmul sëñ Tuubaa danañ ci daje it aku gàttandoom ci liggéey bi ngir mu sotti coleet te na mu war a na mu war a demee kon loolu lépp luñ mën a dalalem xel la di wax ne kon liggéey baa ngi noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Cheikh Abdou jërëjëf mbokk yi nga xam ne itam ñu ngi ñu doon seetaan fii ci résidence Xarim Rasoul ci kër sëriñ Touba gi xam naa sëñ Cheikh ak sëñ Jili dañ leen di yóbbaale rek ci tàggatoo bi ndax eh, waxtu wi moo toll foofu te itam jataay xam naa ne dina gën a yaatu ci ay bërëb yu fasantikoo ndax liggéey bi moo toll foofu di jaajëfal itam commission bi nga xam ne itam liggéey bi ñu ngi ko ànd ak yeneen commission yi mooy la communication ci njiitu Serigne Cheikh Mbacke solution bay Fallou ci coordination émission bi ak mbooleem ñu ngi ko seqal rek suñu techniciens yi nga xam ne itam ñoo nekk ci wàllu xarale gi ba euh, mbokki taalibe yi mën di seetaan di déglu ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dox daje beneen jataay jëm ci liggéey bi di ñaan daje ci ak ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul xam naa kon sëñ Ibra Gueye euh, comme moo tijji woon ci xasida te jataayu murit la dañuy koy joxaat kaddu rek mu daal di ñaan ñu door yëkkati jataay bi bismillah أعوذ بالله من rabbi auzu bika min hamazaati shayaatini wa auzu bika rabbi an yaxduroon bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa jaala hada almanzuma mubarakan junnatan liman nadamahu jazaa jalaati laatimi wa salaa لأوين المنالي أو سلا نويت شكر الله شكرا أعجزا غيري من الورى به وأنجدا نجز لي وعد الكريم فائقا ظني وزب لسواي العائقا هدية المغني هدت كليتي مغنية عن العدا والفرية كنولي البصر في الأقدار في دار الدنيا وتلك الدار لم تنهني وسوسة ولا وجل ولا أذن ولا عيدا ولا خجل ملكني البارئ ما وده الهدى بلا لقاء حسد ولا عدا نفعني النافع نفعا وجها lii ma yasuruni wa nahwi tajaha naajaani albaatinu bil widaadi mulaqanan wa fuz bis sadaadi zahara alhaqu bila kayfiya mimman loo sayriya bil kayfiya madali albaaqi wujuran bi thaman bila isaabin wa zafaaliya zaman hadaani almugni lazi lii awsala maxtaara lii wa huwa ilayya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 wa jannatan li saalikin muriidi wa jannatan